yaakaaru yaakaaruma ne góor gu mel ni fadal ni am na si bi quoi koo ni ma am responsabilité dara maanaam dem ba di mooy ba sax say doom di la bett ngay gisee ki nga xamante ni moo di seen yaay te ñoom ñi mu waroon na leen yow ak seen yaay seen diggante bi jaaxoon na loolu yaakaar naa ne ko gis man ku te kuy daw responsabilité ni moom mii musuma ko gis tamit mais yaakaar naa ne bisub tayam bii moom du si rëcc mukk tànk ki nga ni jaara mu ngi si biir kër gi te yaakaar naa ne bu demee tamit julli ji du jaay jaaree noonu dem fi nga xamante ni fa la war a lekkee ji laax ndax yaakaar na ne bu ko defee dina retardé te bu jaar na koo fekk foofu mais jaara nag moom it ak nga xamante ni moo di mataas mais jaara mi nar naa duguti ci pièce ki ni moo di mataas mataas moom lan moo tax mënul bàyyi santaasam bi mënut bàyyi wutam xaalisam bu métti mii koo xamante ni maanaam day dóor rek dóor rek dóor rek dóor rek quoi mais nag lu ñu ci mën a jàngate leen rek la parce que actuellement nii xam nañ ne suñu réew suñu soxna yi dañoo gëm sëriñ gëm sëriñ ba nga xamante ni jàpp nañ ne sax ñoom jamono ji yàlla dogalatul mais sëriñ ñooy dogal lépp loo xamante ni gis nañ ko rek dañuy jàpp lii sëriñ la nit bu feebaree ñu ne dañ koo liggéey boo liggéey boo amoon bitik dem ba mu yàgg amatoo ñu ne kii dañ koo liggéey boo amul jëkkër ñu ne kii dañ koo liggéey lépp lépp lépp loo xamante ni xew na rek dañuy jàpp ne ñoom loolu maanaam mbirum sëriñ la mais nekkatul mbirum yàlla ko taaloo ko nag suñu borom bi nag mooy dogal lépp mooy fa mooy tax nag Mam lu bari di leen dal ñoom lu bari di leen dal quoi parce que ñaaw bu ñuy am wala jël seen xaal financer ko serigne xaal bu dul jeex def ko serigne tap alors que lañ bëgg yépp dara du ci safro mais kenn du xalé dem nañ ba hôtel ñeneen dañu wuti nga modi ameta malheureusement Kaya gisul ki nga modi ameta mais est ce que yene ngi def remarque bi nga xamante mom lay def digënté Kaya ak nga xamante modi Mami Zara ndax na ñom ñaar seen digënté dafa def ni ñàpp la def quoi wuté na xalé jigéen ñi tay ko ni sa int ku si nekk sa intérêt bopp rek ngay xool sa li nga xamante moo di seen relation yaakaar naa ñaar ñi seen diggante ñoom ñaar bu fekkoon ni intérêt personnel am na si kon Mamy Sarr mi ki nga xamante ni moo di Ameta ndax Ameta dafa toog devant public mu déclaré mbëggeelam si nga xamante ni moo di euh, gis ngeen Mamy Sarr ni nga xamante moom la def mais gis nañ ne tamit seen rakk yi ñu leen di jàppale si wër ki nga xamante ni nag moo di Ameta mais est-ce ko gis.